Assalamu asalaamaaleykum monsieur le président ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mi fi daje yépp ak kilifa yépp di sant yàlla ci ndaje bi nga xam ne si am nañ ko tey fii ci heure bi ci waxtu wi di wax rek ni sunu groupe parlementaire démocratie liberté changement ci assemblée nationale taxawaayam dafa nekk taxawaay boo xam ni taxawaay de républicain la loolu moo tax suñu trajectoire ñu bari di ñu xool gis ni posture bi ñu am assemblée nationale mooy une posture républicaine pour la république moo tax am na ñu ñu naan du ngeen wote lii du ngeen wote lee mais fépp fu nu mën a taxaw bis bu mu mën a doon ci assemblée nationale lépp lu nga xam ne si ñëw na fa muy intérêt réew mi xam ngeen ni parti démocratique sénégalais ak sunu groupe parlementaire dafa ànd ci loolu. loolu moo tax itam euh, parti bi ñu jógee muy parti président Maître Abdoulaye Wade di légaliste bi nga xamee ni si am nañu difficulté politique ba nga xamné si tey ñu ni ñu conseil constitutionnel ces décisions sont sans recours ñu wuti yeneen pexé pexé yi nak moy pexé yi nga xamné si ñi ngi ci constitution bi pexé yi nga xamné si ñi ngi ci règlement intérieur de l'Assemblée nationale lolu motax ñu déclenché la commission d'enquête parlementaire bi nga xamné si pour ñun mo waroon léral li nga xamné nous si japp nañ ni leunt nañu ci li xew conseil constitutionnel ndax la fa xew benn ci bi may ci wax rek mooy dama wax ni euh, sunu candidat bi nga xam ne si ma ngi Karim Meïssa Wade li ñi nga xam ni si moom la ñu sant constitutionnel mooy tànnal ñu sénégalais boo xam ni si danañu wóor ni buñ ko falee sénégalais rek la te ñoom bi ñuy àtte am nañu ci seeni loxo kayitu leen won ni Karim kenn sénégalais rek la loolu la ñu wax nag ni ñun looloo tax pour ñun waxuñu li ñu leen liñ leen sant mooy loolu kon la tax defuñu ko moo tax ñu jàpp ni am na lu fa xew booleeg yeneen difficulté yi nga xam ne si candidat yi yépp yi spol yi amoon nañ ko yooyu yépp nag ñu jël ko en charge ndaxte dañu jàpp ni euh, c'est pas sérieux que le conseil constitutionnel ne puisse pas se donner les moyens de vérifier une clé neuf candidats ak li nga dal li ngay daj lépp ci parrainage nga ñëw ñu ni la parce que mënuñoo ubbi sa clé rek da ngay daanu c'est injuste alors ak yoyu ak yenen yi loolu yëpp bagn ko dajale ñu il faut une commission d'enquête pour loolu yëpp beneen mbir mi ba ñu déclenché commission d'enquête bi xam nañ une ñun commission d'enquête nous avons arrêté processus bi té ñun suñu mbir bëggu ñu élection am ci Sénégal sans suñu candidat Karim Meïssa parti bo xamni 26 ans ba koy def dans l'opposition mosoo manqué élection présidentielle suñu 12 ans d'opposition yi élection mais après le dernier dialogue il était inscrit vraiment que les candidats comme Karim Wade et Khalifa Sall devaient faire partie du jeu donc obstacle bu koy il nous fallait donc trouver le moyen d'arrêter le processus c'est pourquoi nous avons usé encore de notre possibilité de de présenter une proposition de loi pour arrêter le processus et ça a été légal. Nous avons rencontré l'ensemble, la plupart des sens et sud de Dakar. Euh, nous, leur avons dit, qu'est-ce que vous avez trouvé d'illégal dans ce qu'on a fait Tout ce que l'Assemblée nationale a eu à faire, il doit basé sur des textes qui sont une majorité qui am solo Donc le Sénégal n'a failli nulle part. Nous sommes adossés à la légalité et à la démocratie. C'est ce nous en avons parlé, on a fait nous le tour de toutes les sorcelleries pour le dire que le Sénégal reste un pays de démocratie, un pays d'état de droit. nous avons moo le dialogue nous avons salué. saluer il fallait bien que le Sénégal ait ñu Si nous, nu le président a les prérogatives de faire euh, de de de prendre une date mais nous avons fait le kaay leen ñu pour que mbir mi nan lañ koy incha allahu rabbi man jàpp naa ni Sénégal ci jàmm rek lay jëm parce que Sénégal dafa am ay ressources personnelles yu mu am moom mooy mëna waxtaan wax naa ko benn euh, kii euh, ambassadeur Matassel maa woy le pays ba brûlé ma ni ko tu auras la surprise de ta vie parce que dootoo dégg lu yëngatu Sénégal da nga gis ni ginnaaw suba jàmm rek mooy xew Sénégal te moo fi xew ndax nit ñi dañuy waxtaan te ni am jamm inshallah ñun japp nañu ni monsieur le président de la république processus bi war nañ ko reprendre dans les brefs délais japp nañu ni élection itam fi ba nawet war nañ ko fi mëna def mais dans le cadre de la légalité le code électoral le prévoit ça à article 137 c'est très clair il y a des délais dans lesquels on doit organiser les élections l'année li aussi par rapport euh, euh, à la gestion du pouvoir après les deux, nous pensons que la Constitution est très claire et nous, nous, en référons. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, honorable député. Je voudrais inviter Monsieur le Président du groupe parlementaire Benno Bokeyakar, M. Abdoumbo, à venir prendre la parole.